yàlla nag mooy wéral parce que docteur day faj mais yàlla mooy wéral mais dafa am ay conditions yoo xamee bu dajewul wax dëgg yàlla wér dafay jafe loolu moo tax wàllu formation mooy wàllu tàggat ñi nga xam ne dañuy liggéey ci euh, hôpitaux yi dafa nekk loo xam ne bu nekk dañ ci war a dugal suñu loxo parce que liggéey ci hôpital du xaalis mooy tax bëgg-bëgg la ak jaamu yàlla mooy ci dugal doomu aadama loolu tax na dëgg la war nañ la fay mais yow ci sa bopp war nga am sa bëgg-bëgg ak sa yërmande ci doomu aadama ba doomu aadama bi boo ko gisee rek li ngay jëkk a xalaat ci moom mooy naka laay def ba sowe ko loolu moo tax d'ailleurs docteur yi bala ñuy jël jot seen lijaasa dañuy waat wax ni fu ñu fekkee ku loru rek bala ñuy seet tegam poosam daraa ngi ci sax dañ ko war a faj parce que faj boobu mooy li nga xamee ni moo tax ñu ñëw ci àdduna moo tax ñu jël métier bii ñu métier ñu am kon nag ñoo ngi ñaan yàlla mu yem fii waaye nag ay jullit lañ yalla def itam des xew tay ci bisu ascension ascension di chrétien kon nak ñun ñep nañu delloo suñu bop yalla ñaan ci yalla yalla defal ñu xol ñu muñ te li gëj fi bañ fe am réew mi rek am fi ak dal li nga message bi may